vidéo buzz bi dama leen koy may ngeen xool ko mooy def buzz ci internet bi ba gub dërëm war naa tax nga def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw suspense ci vidéo buzz bi du ma leen ko mayegum léegi dama leen ni xalaat loo en tout mettina metti <laughs> ñu dem xool vidéo bés bi ci ñëwaat ci plateau bi ma décortiquer ayca Mia boo paree rek yaag maa aussi c'est mën ngeen maa may vidéo bi nga xam ni moom mooy def buzz ci internet bi waaye yow 5000 daa jar li ana junni bi nga naan caxagul ku ndaj ayca vidéo xam nga ni Dakaaru neex na wax nga yàlla na mu ñaamul de waaw. parce que amul wàllu liggéey bi. li ma toog moo jël. waaw. bu ko yaabee boo ko yaabee perte. parce que yàlla na mu ñaamul de waaw. barke alxuraanul kariim li ma toog moo jël <laughs>